voilà alors ñu ngi nuyu bu baax ki nga xamante mooy maam El Hadji nga xamante mu ngi ñuy bàyyi xel nekkee fële ca ak ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci petit déj alors euh, Khayri. Mhm. loo ñu indi tey ci maas. ñu tey nuyu nga ma sax te laajoo ma sama sujet bi. <laughs> moo tax koy laaj nii. <laughs> xanaa ñu fas yéene waxtaanee rek li nga xam ne mooy arnaque bi nga xam ne dañ koy seetlu ci réseaux sociaux yi. Mhm. Euh, bii nag dafa nekk bu xaw a pire boo xam ne dafa xaw a spécial. Mhm. mën nañoo wax sax ne xëy na dafa rax mbirum maraboutage. waaye lépp rek euh, parfois nit ki mu dal bu fekkente ni victime la parfois nga yedd ko léegi-léegi tamit nga yërëm ko parce que olof Njaay dafay wax ne léegi yedd mhm. ko place ba ko dalee xëy na yow boo fa toogoon mu pur mu mel ne am nañ ci benn élément de reportage rek ci mbirum téléphone la mhm. ak yu demee ni ki noonu mhm. bu fekkente ne élément bi yemb na rek ñu gisandoo ko parce que tey defuñu lu dul ñëw rek pour sensibiliser li nga xam ne mooy population nemmeeku mooy mbirum téléphone yaakaar naa des na yeneen yoo xam ne seetni ci internet bi lay nekk ak whatsapp beeg yu demee ni ki noonu ñi nga xam dañ lay demandé ay ami bii nga xam ne tey ji moom dañuy wax moom la bu fekkee élément bi yemb na nag ñu xool dama am benn problème bu ma amoon ñëwoon naa la ko expliquer pour nga jàllale ko. pour képp koo xam nii rek euh, dalagu la ah, nga di ci bàyyi xel rek ndax man ñii leen ko def léegi nag yëfi ni mu demee waa nag nax na ma yóbbu na sama xaalis bu baree baree baree bari waaw ni ma naxee nag mooy moom dafa amoon ku ma woo man safooru kaar laa moom woo ma téléphone wax ma ni ma dafa paan ci àll bi ñu ma woo ci bëccëg gi wax ma ko bi ma ko waxee ma ni ko man de wax dëgg yàlla damay dawal nii fàtte woon naa ko sax mais bi ma demee ba wàcc ay guddi yooyu mu waat ma ni ma sëñ bi ma dimbali fi ma paan dafa bari ay rab yu fi nekk te mën nan ma lekk man nan ma gaañ affaire yooyu noonu dimbali ma man kaa ah, man fàtte woon naa ko ci laa ko dem dugal ko 500 crédit mu ni ma dinaa la boole ak sama papa pour mu defal la ñaan ndax yow da maa defal tiranga ndekete lépp ay nax la moom ak paam ñoo ñoo ñoo teg dil boobu ci la ma paa bi wooyee expliqué ma ni ma léegi dinaa la dimbali ndax dangaa dimbali sama doom fi mu nekkoon rab bi mën nan ko lekk dinaa la dimbali bi mu demee noonu nag moom ci la ma woo moom bi ci boppam tegtal ma ay tegtal ni ma da ngay jën cin buñ togg ba pare taatu cin bi nga xoos ko boole kook sase ndox ak xaalis nga fanaanal ko ci siwoo ndox boo xëyee man dinaa la woo wax la ni nga koy def nga sangoo parce que dama laa bëgg a jàppale bi loolu amee man ma dem man ma daal di dem def loolu jël ñu liti cin bi ak sase ndox bi ak xaalis bi ak tuuti ceeb boole ko def ko ci siwoo ndox léegi nag bi ma ko defee après ci laa ko fanaanal ci siwoo bi bi ma xëyee moom moom ma woo six heures du matin ni ma defoon nga li ma la wax ma ne ko waaw ah, mu ne ma léegi dama bëggoon nga nga sangoo ko léegi nag loolu bi ma ko sangoo ci laa noppee ànd ak sama sago léegi nag moom lu ma laaj rek après moom ma envoyé ko ko waaw loolu daal moom ma moo ma sonal li ma yoroon lépp ma jox ko ko sama versement oto yi ma doon am lép par semaine parce que dama naa def chaque semaine ma dem verse ji chaque semaine rek quatre-vingt-dix mille ma doon rek ma jox ko ko ba ñaari semaine li ma dencoon ma jox ko ko leb naa ma dëkkaloon nattu deux cent mille jox ko ko leb sama doom bàyyi cent mille franc jox ko ko li ma yoroon lépp daal pratiquement man jox naa ko ko waaw parce que boobu tayatuma ko lu ma ko envoyé rek mu ni ma man lijjantiwaat dina baax affaire yooyu noonu noonu daal la ma doon naxee di ma nax di ma nax ba li ma yoroon lépp yoratuma dara li feeñaat affaire bi sax mooy sama patron bi moo dem ba ni ma yow am na fooy def sa xaalis ndax yaa ngi liggéey ñaari semaine versé woo léegi da nga may indil oto bi ñu xool yow ba xam fan nga dugal xaalis bi après nag ci laa ci laa oto bi ma yóbboo oto bi ci laa woo sama patron bi ma jàngal métier ma expliqué ko mu ne ma yow noo def ba versé wu ñaari semaine ci laa ko ne nag ma leeral la nag ni mu moom moom nag bi ma ko leeralee ci ci la soog a man ñu dem police parcelle bi nee police parcelle ñu entendre ñu waa ji sax woote na ci biir police bi bi wootee ci biir police bi ñu teg ñu ñu def ko mel lii pour policier yi di ko déglu. après ñetti numéro yi ma doon wooye yëpp ñu jox ko policiers yi dugal ko seen machine yi ma léegi ñaari numéro yi moom am na tur yooyu dañ ciy def plainte ñu topp plainte bi man nag bi ma defee plainte bi pratiquement man ca la ca la ca mujjee xam dara ñoom daal dañ mu ne woon da nga fi bàyyi sa numéro def plainte bi ñoom dinañ ko topp parce que kii am na ñeneen ñoo xam ne nax na leen ñu def fi plainte waaw léegi nag policier bi ni ma coupé ko bi ma ko coupé bi ñu génnaatee mu continué di ma woo sama mag boobu ma jàngal métier nag moo jël téléphone bi wax ak wax ak moom ni ko yow ki ngay woo nii damay gis moom chaque jour mi ngi wuy téléphone ba pare da koy laaj xaalis yow la kan mu ni ko non la may wax ak yow joxaat ma ko bi ma joxaatee nag ci la ma ni bul wax ak kenn man ak yow la dama bëgg dimbali li cent mille moo ci des ci la sama mag bi jëlaate téléphone bi nag wax ak moom ko yow tiriyaa nga sàcc nga ci la ma soog a nopp maye jàmm mais man daal li ma ci ñàkk ëpp na cinq cent mille yoo xam ni tayuma ko ma bëgg nag képp ku man di doon ñu di la woo téléphone dama laa bëgg a dimbali wala dafa la dama laa bëgg defal dara bu ko nangu parce que dañuy naxaate man moom li ma nax ëpp na 500000 ca tayuma ko mënatuma ci dara loolu daal laa ne woon naa la ko wax pour ku képp ku mën di doon rek nga leerale ko noonu. voilà mi ngi noonu moom loolu la jot a dund ci li nga xamante mooy arnaque yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy euh, def euh, nit ñi mais man li xam nga xayri bañ ko dalee dégg yàgg na chaque jour dañ koy dégg mais man chaque jour bu ma ko déggee li may njëkk posé wu la question mooy ñoom naka la def bay am numéro yi nit ñi dañuy choisir nii au hasard ba dal si kenn wala lan la. waaw sûrement noonu lay war a demee nag te xam nga li ñuy wax euh, sénégalais rek ak li ñuy wax teranga mm-hmm. Sénégal. nit ñi dañu tàmm di dimbalante. xam nga nit ku nekk ci liggéey nga oo ko sëñ bi mu naan nga ko man de damaa pan moom tamit mu nekk chauffeur comme yow parce que dégg nekk ci àll te fii ma nekk nii wóorul lu nekk man na ma fay fekk dama bëggoon nga dimbali ma may ma crédit même bu doon te 500 sax nga may ma ko bon xam naa foofu li ñuy wax lu yàlla war a dogal waaye ki am crédit bu muy ootee xëy na moom waroon naa mën a def leneen waa ji kon mu mu daan parce que da ko ne àll bi ma nekk nii bukki yeeg lu nekk mi ngi fi ah fii mën naa lu nekk mën na ma fee dal donc bu ma sañoon nga dimbali ma rek may ma crédit boo xam ne dama ci mën a am ñu ma mën a woo pour ñu mën ma dimbali génne ma fii ma nekk ak demee noonu ci la ko dimbalee après mu jël numéro am ni ko dinaa la booleeg sama papa parce que borom xam-xam la mu jàppale parce que danga ma defal teraanga mm-hmm. xam nga loolu tamit xëy na mënu xalaat dara mm-hmm. ci la ko joxee turam benn waaye oo ko ni ko li nga defal sama doom expliqué na ko turam ak santam ak yépp ndekati ji jox boobu ma ko jox nag ci ko paa bi jàppee nag daal di koy à distance ah li ñuy wax ni ku sëriñ amul fekk sëriñ daf la jàpp. à distance la ko defee parce que waa ji il paraît que mi ngi woon Gambie entre frontière Gambie ak Sénégal. parce que léegi-léegi dafay mel ni mi ngi Gambie léeg ngi Sénégal ak yu demee noonu noonu donc lii kii di wax mu ne loolu seen système la parce que pour nga localiser leen wala tey nga demoon police police mën leen localiser sax day am problème parce que doo faat ka ba tey gis nga loolu boo gis daanaka problème mu puces yi xam nga puces dañ naan boo koy abonné léegi deux abonnement la def deux puces yi. Mm-hmm. mayuñu la léegi nit ku nekk. Mm-hmm. dépassé trois wala deux. Mm-hmm. ah mais da nga gis ni waaw ba léegi nit ñi dañ koy abonné lu leen neex parce que bu promotion amee rek wala yu demee kenn ku nekk tamit yaa ngi xool sa dërëm ak sa intérêt mais doo xool sécurité dëkk bi ak nit ñi nga xamee seet ni peut-être lu baree bari loolu bu amee tey. lu mel nii mu jël ko jox ko ko mu nekk nit koo xamante ne xale la mais xale bu fonk liggéeyam musul ameel kenn mu ngi liggéey mais comme dem ñëw ne la dama am problème te waa ji lu mu ko laaj ay 200000 ay 100000 dugalal ma 100000 dugalal ma 200000 lu mu ko laaj mu jox ko versement ñaari versement mu joxe dem si ki dëkkandool àbb ko comme xale la liggéeykat mosu si xamul dara mu jël xaalis jox ko dem ci nattu jàmbur ne teggi la ma ñu teggi jox ko problème la koy andil heureusement li ko xaw li tax sax yàlla dimbali ko mooy borom oto bi moo teel a récupéré oto bi mu ko dëkk pee rek xale yi laaj ko ni ko toujours yaa ngi liggéey loo def ba amoo versement ci leen expliqué leen man dafa am koo xam ne daf may ñaanal moo may laaj loolu te ce qui est mooy waa ji oo na ko ba Gàmbi ba mu demee ay euro la ko wan lépp ci affaire bu xaaba mhm. guddi la fa wàcc mën na ko rey sax bi mu fa demee mu yóbbu ko ba ci xaalis bi ni ko xoola mu muril mu gis lépp di ay dollars mu ko lépp yaa ko moom

jënd naa crédit bi may dugg sama salon lañ ma oo allo waaw soxna si ça va yow da jënd crédit léegi maanaam yow gis nañ li ngay jënd crédit dafa bari mhm. moo tax bi ñu sélectionné yow gagné nga sax mhm. am nga benn kii xaw ma yu demee noonu man ah, ne maa ngi soog a jënd crédit affaire bi nag ma mel mun ma waa da ñuy dugal fekk yoroon naa sama orange man rek ma dugal mhm. mun ma waaw xaw tuuti ci kanam après dañuy def benn loterie mën nga gagné <laughs> bi ma composé wax ñu ne non du ñoom maa ngi gis sax fan ñu ngi def ay émission di wax naan buñ la oowee neel du ñoom buñ la joxee ay numéro luñ la laajee ay numéro téléphone buñ la laajee sa numéro compte parce que bari na ay compte yoo xam ne vidé nañ ko mhm. sa compte orange money te gis nga nit ñi dañuy sensibiliser nga naan wax ji jarul wax parce que déjà nit ñi xam nañ ko mais am na ñoo xam ne ba tey yeewooguñu mhm. parce que lii nii yàggul mhm. jëf parfois émission yi heure yi muy dem nit ñi du ñu am temps ak yu demee noonu di koy déglu mais fatka yu mel nit ñi dañ cee war a yeewu hmm. affaire maraboutage yi nga xam ne dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di la woo wala léeg-léeg ñu wala dañ la faatu nga tudd wala kumba tante wax benn affaire nga ne hmm. noo man tudd ma noonu diw laa tudd buñ di joxe seen tur hmm. nit ki la na présenté wu d' abord yow balaa nga koy wax yow la kan mu xam moom la da nga jum trois jours kat wala un mois nga fàtte ko ñu war rek jaar ci sa tur nga ne waa man la ñu ne dama laa gis ci sama feet. waaw dama laa gis ci sama feet. yow de amoo jëkkër wala am nga jëkkër nga ni a dem a am bor boo xam ne fu ñu jaar nañ ko fay mu nekk lu nga xam ne certifié or ndax sëriñ te sëriñ bi du mujj fenn parce que am na naxaat yoo xam ne bu la ci xasee nax yow di wax te xamoo foo koy waxee di nga dem ba jeexal miraas sa bopp te te te du mujj fenn. fat mm-hmm. ka daal liñ ci wax rek moom du bari. Mm-hmm. mooy daal nit ñi nañu yeewu nañu yeewu ci affaire téléphone yi. nit ki bu la wooyee na présenté wu xam yow yaay kan puce yi nga xam tamit dañ koy wër di jaay nañ si dimbali nit ñi parce que tamit ñu ngi lor nit ñi da jënd sa puce def ca la neex boo paree nga sànni puce ba wala nga damu kenn mun laa localiser mm-hmm. yaa ngi dégg te liggéey bi nit ñi amatuñu jot di topp ay nit yoo xam seen daf la yoreli wala yoreli nit ñi nañu vigilant bu baax a baax mm-hmm. xaalis moom boo liggéeyul kenn mun la ko may gratuit parce Sénégal boo jëlee 100 pour cent yi ah. Mhm. tey 75 pour cent yi dund nañ euh, euh, genre arnaque mhm. yooyu nga xamante ni dañ lay woo sa sa téléphone xam nga di da ngay foog ni sa nit koo xamante nii daf mhm. daf daf la xam la di la wax ay wax yoo xamante yow yow boo waxee yow rek automatiquement réer nga. après yow su yëf yi passé ngay xam ne man mii kat li j'étais bi bi bi nga ñu ngi ma doon def lii nii mu nekk loo xamante ni dafa doy waar loo xam ne dañ la koy def a distance. boo nekkoon en contact xaw ma lu nekk ci puce dañ koy wax yi mhm. commencé 78. Mhm. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo daan wootee di la wax ne damaa laa gis sama seet. Mhm. ñoom actuellement ñoom ñooy wootee di la wax may ma crédit 2000. soo paree comme ni nga expliquer problème bi ñoom ñoo lay wax ne la danga maa defal lu baax dama lay fay dëgg la ñoom ñoo koy wax man nii nit wax na ma ko ma dem dugaloo ko 2000 francs mëna tudd comme nii rek bu fekkoon wax naa ko sama tur wax naa ko li wax naa ko lee lii ba ma waxee ma ne ko man dama laa defal ngir yàlla ak yonent bi jaruma la wax sama tur comme noonu rek may ma 2000 tey xale yi ndékki wuñu xale yi añu ñu genre yooyu noonu lañ lay wax mm-hmm. ñoom ñoo doon wax ne euh, dama laa gis sama seet même personne yi la boo ko waxee boo dof-dofloo ñoom après une de temps. Mhm. dootoo jot numéro boobu. Mhm. donc kuñ ci woo naan la ay liyeeg laa. reetaan leen te noppi. Mhm. récemment man semaine passée rek am na ku ma ci woo ci 78 yooyu noonu. Ah, eh, eh, eh, soxna si ma ne ah damaa bëgg nga déglu ma maa ngi lay déglu mu ne dama bëggoon nga ma crédit 2 millions ma ko ma yaa ma tane. ne ka raj coupé. ki ma toogaloon daa ree ba sonn ma ne ko yow yaa ma ne ka raj coupé du ma sax yaatal wax ji. parce que ci noonu lañ lay jaaree. doy na waar ah. ma ne ko lu doy waar. doy doy na doy doy doy na waar en tout cas et j'espère que ñi nga xamante ne ñooy autorités yi dinañ jël bu baax ay décisions ci yooyu nga xamante jot na fi am. ñi nga xamante nii ñoo ñoo ñoo ñoo yore euh, ay bëgg ma def publicité ay orange tigo ñeneen ak ñeneen ñoom tamit war nañ ci am taxawaay bu baax a baax mm-hmm. xayri jaajëfal nañ la waa ministère de la santé xam naa léegi ñu ñëw mm-hmm. ñu ngi lay remercier bu a baax jox la mm-hmm. rendez-vous semaine prochaine incha allah waaw Fatou xanaa semaine prochaine incha allah ñu ñëwaat ci beneen thème beneen kii di jaajëfal mbokk yi nga xam ne dañuy toog di ñu seetaan di nuyu tamit sama chéri Mame Diarra Gueye chéri Assane Fall madame Fall ñu ngi koy nuyu bu baax yaayu xayri xayri bu ndaw ñu koy nuyu bu baax a baax macha sol yi une semaine bi yëpp yaakaar naa lu ma sol moom ma ko jox di nuyu tamit sama papa waa Ngourane Seck Mm-hmm. Maxtaar Seck maa ngi ko nuyu bu baax nee na mi ngi toog di ma seetaan ak sama chéri boobu Umu Seck di nuyu tamit suñu yu baax di leen ziar di mm-hmm. leen euh, wax ni leen incha allah ba jeudi prochain incha allah mm-hmm. merci beaucoup Khayri di ñu ngi lay aussi ñi nga xamante ni ñoo toogoon na di ñu teewlu depuis sa suba ku ci mel ni ki nga moom mu ngi bàyyi xel bu baax waa Kaolack yëpp ak waa Léona Niassène yëpp ñoom itam ñu ngi leen di nuyu a baax euh, ko ak euh, équipe bu euh, Petit Déj di remercier Tata Adjaratou Penda Diallo Gueye ak ki nga xamante moo di Charles René Fall ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy accompagner tout au long de la semaine nekk ci régie bi lu fi baax rek tàkkaal la ñoom la image yu rafet yi yooyu noonu alors di leen euh, jox rendez-vous semaine prochaine incha allah demain équipe wutu muy équipe bu vendredi passez une bonne journée et par anticipation aussi passez un très bon week à lundi incha allah